Assalamualaikum mbokk téléspectateurs yi ñi seetaan fi ci sen télévision bour TV ñu ngi fi tay ci pak Lawbe di fas présenter présenté émission bu bees tak bu ñu naan malaw maalaw malaw nak soko déggé moy déggee lawbe yi ñu ci waxtaane lépp lo xamante ni culture lawbe la ak cosaan ak ada ñu ci won nag ñi nga xamante ne ni nag ñoom mbokk sponsor képp ku ci am lo xamante ne bëgg fessel loy jaay ya xam bouti nga yor ya xam place lépp bëgg fessel nga indi ko fi ci Mbour TV ñu woneel la ko ba ñëpp tak ci sen bëtt jaay la ko ba mu jaar di ci wo tamit sama mbokk lawbe yi képp ku ci am programme bëgg ñu woneel la mën nga ko indi fii ci seen émission ëttu maalaw ñu naan ko ëttu law bay ngeen ci ànd ak seen xarit seen doom ngañ saw ñu waneel la ko jaayal la ko ba mu jar na ñëpp ñëw bientôt lu bees tàq ci seen année 2020 ëttu maalaw ëttu law bay lu bees tàq fii ci Mbour TV